am na mag ñu ma sa dajaloo di laaj sëriñ Tuuba qaada lahullahu maxtaara la cër bi Cheikh Ibra am ci xolub murid yëpp lu ko waral sëriñ bi ne leen yéen ñëpp ku ma ci waxoon awal fii boo jógee ca bunt ba ngay jaar waaye moom bu ma ko waxoon awal fii fa ma joxoñ lay xool bu jógee fa lay tey boppam ak lu fa mën a nekk bi ci topp mu ne am na ku mas a wax sëriñ Tuuba qaada lahullahu maxtaara la dama bëgg nga dimbali ma ba mel ne Ibra Faal sëriñ bi ne ko faat na yéen ñi fi nekk ñu leen di wax ay murid saadiq kenn ku ci ne bi ngay dikk da nga def sa bop ñent xaj ben xaj bi nga seddu ko sa bop ben xaj bi nga seddu ko say dok ben xaj bi nga seddu ko sa borom ben xaj bi nga jox mako bura bi mu dikkee ñent xaj yépp lama jox boromam biko bindu la ñëk am na kilifa gu Sëriñ Tuuba qaada lahu laahu la ma sa wax waxal loo bëgg ñu defal la ko mu ne ko mel ne Ibra Faal sëriñ bi ne ko faat na waxal la neen maa ko tànn bu doon dund junni at fa ma ko yóbbu bu doon yooru di ñëw junni at du laal suuf mu ne ko may ma ma topp ci moom sëriñ bi ne ko defal nanu la ko ba tey sëriñ tuuba qaada lahu llahu maxtaara la nee na ibra faal defal na ma loo xam kenn musuma ko defal moo tax ko cas ak ñi mu àndal ne mustapha am Mustafa nangu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na bis maam cheikh ibra fall radiallahu taala anhu yereji ji sëriñ tuuba lahu llahu maxtaara la yebal ay ndaw ne leen dem leen seetali ma ibra fall ba ñu génnee bi woowaat leen ne leen dama bëgg ngeen seere jëm jooju ngeen jëm ne la dalee ci kawari boppam ba ba ci weyi tànkam ya lu cay metti liggéeyal maa tax sëriñ tuuba xaada lahullahu maxtaara la mas naa woo Cheikh Ibra Fall radiallahu ne ko addiye ji agsi na waaye du loolu laa lay doye ana lu ma lay doye boole laak aji bind ji ngeen doon kenn dañu ko jottalee Cheikh Ibra Fall mu ne loolu neex na di sëriñ bi ne ko loolu laay def sëriñ Touba xaada lahullahu maxtaara la mas naa wax sëriñ Mbàkke Juuf ne ko Ibra Fall góor la mu ne ko waaw Mbàkke sëriñ bi ne ko bi mu jëmee ci man joom waaye defe naa ne naxuma ko bi mu dikkee bàyyi boppam bàyyi ay mbokkam bàyyi yàlla mi ko bind ngir sama jëmm ji defal naa ko loo xam ne moo ko gënal boppam gënal koy mbokkam te tàggalewuma ko yàlla mi ko bind danga xamul ne bu ma woowoon Ibra mu ñëw ma ne ko yàlla mi taxoon nga di ma topp toppatuma ko du tax mu dellu gannaaw ci topp gi ma toppoon waaye defe naa ni man it fay naa ko ndax bu dajale woon ñi mu àndal ñëpp ne leen kii taxoon ngeen di ma topp wacc naa ko du tax kenn dellu gannaaw Sëriñ Tuubaa xaada lafullaahu maxtaara la mas naa wax Cheikh Ibra Fall radiallahu taala anhu boo génnee ci réew mi loo xam ci man lu mu tuuti tuuti bu ko nett li wax ko ko ñetti yoon mu dem dikkaat ne ko ko wóoluwut wóoluwu la man it lu ma la liggéeyee lu mu tuuti tuuti bu ma ci fay dara fii ci àdduna sëriñ bi ne ko sàmm bi bu jiitalee géttam ba ca mbalkaam lee géttam ba ca mbalkaam lee géttam ba ca mbalkaam àgg mu làbbali ko ba mu fees mu di ko jukki ba mu yër pind ba mu ne ko tëyit lagg wuti mbalkama di ko ca sotti ndox yee rot ci diggante pind baag mbalkama ndax sañ na koo bañ mu ne ko déedéet Sëriñ Tuuba xaada laxullaahu maxtaara la ne ko loo gis ci àdduna noonu la demee waxtaan woowu ku dégg wolof dana ko mën a jàpp bu baax a baax sëñ bi ko rek ab sàmm bu demee dugal goj baag baag ba ca teen ba di ñoddi ñoddi ba baag bi def ndox génn ci biti fees dell muy gaaw nag bëgg koo sotti fam koy sotti diggante ba mu koy génnee ca buntu teen ba ak ba mu koy sotti koy sotti ndox ya fay rot fi suuf ca diggante ba xam nga ne lu ñàkk soow lay doon te sàmba mënu ca dara mëntatu ne ko nag loo gis ci àdduna muy nuru ak pay ci li nga ma liggéey nit mi ngi mel ne toq-toq yooyu rek rote ca baag ba loo mënta ñàkk gis la waaye joote wut ak sag pay dara sëriñ tuuba xaada lahullahu maxtaara la mas naa rëdd aw rëdd wax ne ku ko jéggi tàbbi sawara maam cheikh ñëw jéggi ko sëriñ bi laaj ko mu ne ko man yow rek laa bëgg bëgguma أجنا سرين توبا قاد له الله مختار له نينا إبرفال بين بوبم بين أي بوكم بين بروم غير من واي دفرال ناكو بوبم بوليكو أي بوكم مراليكو بروم بولي ناكو نيو خمني bu ñu gënul ay bokkam it ñoo gën ci moom ay bokkam sëriñ tuuba xaada lahullahu maxtaara la nee nañu bu masaana gis lu taq ci biir kër gi danaan xanaa Ibra gisu ko sawara mas naa laaj wàllam sëriñ tuuba xaada lahullahu maxtaara la ci li muy joxe sëriñ bi tontu ko luy ne amul jenn lor léppam njariñ la bi sawara naagoo ba wàññiku sëriñ bi ne ko ku masa di ibra faal sab cër la bu ko jéggalee nga xam ne moo la ko xañ des na ay wax wax waaye nu far yam foofu